ñu gis wax dëgg fa yàlla ci biir këram muy biir kër Seydina Ousmane da nga fay am cër waaye mu cëral la ci ba nga xamante ne njaboot ga bañ fa ñëwee ci généralu Bamba bi ñëpp a yëg seen bopp kontaan mm. mm. këpp ku fa nekkoon nit bu dul dara sax sa xel dafa dem ci sa jëmm ji mm. ngir cees gu njëkk ga ba muy ngar ku tedd ki yaay yëg ca kaw wax ko ki nga doon mu ne la sa normal waaye teyit mu woote waat fii coalition du siècle ñëpp xamee ko ci xarnu bi tey bi nga gisee mbokk taalibe yi Fall ak la doon xew tey nga gisaan mbokk taalibe yu ñuy faal. sa xol lan la yëg. li sama xol yëg. Hmm. woote ci yàlla. Mm-hmm. mooy woote alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi mm-hmm. ku tedd ki Cheikh Ahmadou bàmba moo ko matale. li yàlla dajale yëpp tënk ko. ku tedd ki rek. Cheikh Ahmadou bàmba ci moom la ko yàlla matale. alayhi salaatu wasalaam rasulullah waxoon na. ginnaaw gàddaay gi junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett. dana am kuy feeñ. bawoo ci sunu borom. waaye du yonent du xutbu du laptaar du nuja baaw du aarafina billaahi du yonent du xutbu du sultaani law yaahi Sëriñ Tuubaa dañu woon maa nga bawoo ci sunu borom. te Rasulullah xamle na ko. te loolu sunu borom yëgle na ko. ci yonent yi njëkkee ak mujj yi. leer googu ñu naan ijaabu xudrati. leer gi ñu naan ijaabu xudrati. bi jamonoom jotee. junni at ak ñett téeméer ak fukk ak ñett. ci la Cheikhul Khadim wàcc fii ci kaw suuf. wut fi set ab sët ko indi. moo tax mu ni sibti ka sibti rasulullahi ay su baddaa sët la ma yàllay fayee sët nag du sëtub deret sëtub leer la nekkoon mu feeñ ca arab ya te du sëtu deret li ko waral maam da koy liggéey ba yeyoo ko yàlla fayee ko moo tax Serigne Touba liggéey ko ba yàlla fayee ko mu ni maam Thierno Birahim fi dikkoon faj naa sa aajo waaye sa aajo lendre rek la muy yàlla sunu borom moom nga ma toppee bu ëllëgee boo fayeekoo ñëpp laaj seen cër lu mu doon set boobu nag mooy fayeeku gi mooy la mu noon cerno demal toog daaru loo fa fekkul dama ko amul loo fekkul dama ko amul du areen du ay dugub du am sàq du leneen loolu yëpp la mu joxoon Serigne Touba boppam la koy delloo Serigne Touba boppam lay delloo maam Thierno Ibrahima ndax ñoom ñaar amir la ñu ak wasir amir ak wasir amir ak wasir rek a xam liñ doon kookoy Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fati moo tax musul bind musul taalif musul wax leneen ndax day mel ni kon téyelul sëñ bi lépp kon na sëñ bi taalif na sëñ bi wax na sëñ bi jëf muy ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba waaye moom jëfam ak taalifam mooy taxaw Cheikh Ahmadou bàmba la ko maam Mor Anta Sali waxoon boo dee amir mooy wasir foofu doy naa yem looloo sët bi bi mu waree wàcc ci kër Ndóore ni la wàcc ci ëttu maam Thierno Birahim kookoo Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni moo woote bésub ren bii di bésub tey bii Baye Ousmane Mbacké ni woon su ma gane jee cerno ca bayti gane ji cerno lool de bayti du ay kër ñu dem dellu siwaat su ma gane jee cerno ca bayti ba mu def fanweeri at ak ñett bu tegee ab diir ñaar ba ñett fanweeri at ak ñett mooy mooy su ma làqoo wax kii xam wàccaayam ak làqoom altine la ko wax altine dellu su mu làqu sëñ xaadim docteur la ko waxandool ca bésu altamine li ju mujj jë fa ma fekk boobu ñaar fukk ak juróom la am loolu wolof loolu tubaab naan vingt cinq ans ma fekke ko muy waxtaan ak moom ma yor uppukaay di ko upp kon fekkee ma ci boole fekkee ma ci boole de waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf mu ne bu ma gane jee Ceerno ci bayti ba mu def fanweeri at ak ñett fanweeri at ak ñett mooy 2015 ca la demoon Thiès ca la waxee nag Pam Gagne jaru muy àgg dof wax ju àgg ko moom. yaa ko yor mala koy ah, ñu mujj laa wax Baye Ousmane Bakir di tàggoo dem bayti ni bu ma defee fanweer ak ñett bu tegee ab diir ñaar ba ñett muy deux mille dix-huit danaa wax ci ci kër Serigne Touba mooy bi sëñ bi demee gàmmu ca sëñ Muntaxa ca Njaareem xanaa fekke nga ko Ousmane. dara jarul dara dara fàtte xaju fi. fàtte xaju fi mu ne at ma ca topp. xanaa gis ngeen ni mu defoon président bi. ba mu demaatee Thiès te président bi dugg ci oto ni ko agsi mu agsi mu dugg dugg ci oto bi yëkkati ko. yëkkateewu ko càmmoñ de. ndeyjoor la ko yëkkatee. kon fii ku fi baax. Serigne Touba la. te ku fi baax Thierno. Macky Sall xam na ci dara oto président benn kilifa mu gu taxaw ca biir fa muy taxaw en tant que président di génn ku dul Cheikh Ahmadou Karam Mbacké te sàkkuwu ko dëgg dañ koy wax de mu ne bu jàllee mooy deux mille dix neuf bu tegee ab diir ñaar ba ñett muy deux mille vingt deux bu jàllee at ma ca topp di deux mille vingt réew mi dana tas tasar ñu koy séddoo xanaa ni réew mi tase ren ndax ni réew mu tase ndax mës naa am yéen ñi mujj a judd ndax mës ngeen fekkee lu mel nii mu ni su boobaa balaa jeex man Ousmane ma laaj sama wàll wàllam nag mooy alxadime cërub yàlla ba Serigne Touba liggéeyoon yàlla wàcce wàcce ko ko loolu mooy fayeeku ko man Misbah Fall Makumba Fall maa ko wax fekke ko te di ko wax te war ko wax tey laaj kan moom ma koy tere wax kenn ngeen ko wax de. lay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg gi. jaraw la kay faal lépp yéen a. kon Mbacke dañuy wax xam lépp. góor du xam lépp wax ko. ñu jox la lépp nga jël lépp góor du ko def. sañ naa ko def naa ko as góor moomu ko foofu laa mën a yem. ba ren di déwén. jërëjëf Serigne Touba.